naa wax ne allawtiku na djégo yi nga xamante ñoo ñi ko fi jitu mom lañ fi def ba tay sokosim lamu doon bañ demb ak barki demb nangul nañ ko tay parce que de dilatoire en dilatoire dem nañ ba légui tay sokosim nanguna fay momi tamit nga xamni moy préfet jël na engagement pour que gannaaw fay gi nga xamante fay nañ ko ñi nga xamante manam ñoy ñooy attributaire de parcelle yi jagleel wat nanguna leena leen yeneeni terrain manam à titre de compensation donc kooku nak mënuñu dudul sant ko fi gërem ko parce que taxaway bu mu am ci série G dañuy wax né autorité yi nga xamante ñoko fi yebal nañu xamné ne mate na li doon taxaw na taxaway bi mu wara taxaw té damay wax né ginnaw loolu yi tamit amna fi yeneen agression yu fi am benn bi c'est dans le 15 425 beneen bi c'est dans le 15 426 c'est des parties du lotissement de la série G ya nga xamante ay samba boy ñëwoon nañu ak jël ko féetale ko seen bopp tey jii tey terrain yoy ne delloo na leen ko dans la mesure où il a dit que c'est des titres de l'État et que ces titres de l'État ne sauraient appartenir qu'à ceux-là qui ont été en fait ñi nga xamanteni manam maanaam ñoo fa jitu moy té lotissement euh, Rufisque 2 bi manam teg jagleel leen ko moy la série G donc képp ko am ci 15 425 15 426 na nga japp ne sa parcelle yaa ko moom te bàyyi bi nga xamanteni mo cey cay ci sa tour lay génn benen bi moy ñi nga xamanteni ñom la wa euh, euh euh château d'eau bi impacté mu nekkoon au nombre de 18 18 dix ñi nga xamanteni ni ñoo ca nekk treize yëpp euh, indemnisé nañ leen maanaam dinañ leen jox euh, terrain dinañ leen damp damp bobu amna ba paré terrain yi moom moo des te ce sera pour bientôt inshallah préfet jël na engagement bobu te it trouvé nañu site bi trouvé nañu fi nga xamanteni fa lañ leen war a jagleel beneen bi muy senico bi nga xamanteni ni moo nekk nii di usine senico te monsieur Dia yor ko dafa am ay parcelles yoo xamanteni ni usine am bi mu koy taxawal dafa impacté ci parcelles yooyu parcelles yooyu ci jamono 5 la woon waaye dafa dem di jël di jël ba mu nekk douze parcelles au delà de ça moom taxaw na c'est vrai d'accord ne moom tooñ na tooñal gi mooy lan mooy dafa toj ay parcelles ci biir loolu yàggul bim ko tojee jël nañu huissier pour mu def constat bi mais dañ ñu woo ci négociation muy le maire albendoy négociation yi ci lañ nek ak mom waye dañu buté sur un obstacle moy lan moy d'accord na pour ñi nga xamé yak na seen parcelle fay leen mais ñi nga xamanteni manam maanaam danay parcelle seen parcelle dañu dugg ci bir euh, euh, titre am ñooñu nee na amelu leen dara loola nak amna ñu ci dox doxu jàmm te it li tax tay taxawuñu taxawaayu bu belliqueuse moy dafa am ñu nga xam ni dañuy dox ci diggante bi pour rafetal ko loolu moom moo tax fi mu nekk nii jéemuñu ci leneen lu dul xaar après li nga xam ni moom la ñuy def buñ ci jógee mën a dox tànku jàmm ci li nga xam ni moom mooy suñu diggante ak moom. fii nag CRG benn lot benn collectif boo fi am reconnu c'est notre collectif ñoo am récépissé ñi ci des demande leur leur récépissé ku la ci laaj ne la man diw laa nee ko ani récépissé bi la permettre faire ngay wax au nom d'un collectif